on a depuis ben que Babacar Ndiaye n'est pas l'homme qu'il faut à ce basket-là. Si, si vous avez à ce basket-là l'homme qu'il faut, peut-être que Douma Finek ça dit di wax. Parce que c'est là, quand la compétence est là, nous sommes du degré du 7, nous savons que nous sommes doxalé basket. Mais depuis Ben, parce que je sais, wax dama ko xam parce que si, si, si, nek ci au basket, bi, ko gis que nek mu yoré club, je sais que nous devons fonctionner avec club club. Donc je dis que si vous faites que l'olé fofu bu vous transformer ce basket, bi, si la fédération, eh ben ce serait très mauvais. Il a fait même pire que ce que je ne croyais donc pour nous ci affaire euh, euh, euh, coupe du monde bi coupe du monde bi depuis que nous avons depuis créé un peu le euh, la séparation entre nous et Adidas j'ai attiré la sonnette d'alarme ne leen ebe eh fi mu nous. si pax la jëm pax bi nak moy moy euh bu yow acteur nga man acteur la joueur la xam nous nu faire préparation je ce qu'il faut surtout boy dem dans une compétition internationale bu nga coupe du monde Ce que nous avons nga en matière d'énergie si c'est bir tank, si c'est bir pot, si c'est bir cuisse c'est-à-dire que en fait la condition physique Si quoi non pour pouvoir nga de performance sur le plan physique eh bien même le Sénégal information bi ma leen di jox ni moy information bu fiable bu leer nañ do xamné kenn du ko weddi xalé yi ils ont eu 5 5 entraînements dans leurs jambes avant ñuy mëna dugg ci compétition internationale fo xamné war nañ fa am ay 40 50 5 entraînements lu ñu am gis ngeen li xaw fi euh, bi xalé yi euh, commencé boudé wu fi xam nga dañ doon wax ay affaire prime en réalité du affaire prime dañu ñëw euh, euh, lii xew réellement dinaa leen ko wax te pour ngeen xam ko du affaire prime lii xew entre euh, Babacar Ndiaye ak ak joueur yi ak Maurice Ndour c'est que dañu dem arena eh ñu fekk arena comme nigérien dañoo gagné marché bi dañoo dagg filet yi yóbbaale ko c'est normal loolu compétition internationale bu nekk du bu ko gañee noonu ngay def mais le le le le responsable du gymnase jotul changé filet yi ñu ñëw foofu fekk fo salté bu dul jeex.

dangerosité bi nga xamee amna ci parce basket bi moy ak directeur technique am ce directeur technique là mais man je dis que en temps de guerre dafa war a dem même à la potence parce que en fait pendant 45 ans 5 ans il a amassé du tubaab bi beaucoup d'argent, plus de 60 millions te ba pare des dara ci biir équipe nationale te bo la jax xalé góor yi fi ñi nekkon Chine mais ñom ñep luñ lay wax à l'unanimité c'est que bu waccé car bi duggu ci terrain bi bu ñu jouer wala bu ñu entraîner mu ngi Mungi ngi nelaw ci banc yi mu ngi biir kaar yi parce que c'est normal c'est un homme malade qui est parti là-bas il a il avait presque presque il ah ci li ñu wax information yi entourage am 19 de tension même la duggee ci avion parce que tout simplement il fallait que le dugg ci avion bi pour maintenant en prime 5 millions ak 2 millions hein, pour capitaliser ak lu mu am mais presque pour 25 millions mais voilà ces gens là de ces gens là dañu ñëw pour acquérir mon basket ball pour utiliser le basket bi Maître Ndiaye aujourd'hui je te dis que liggéeyatul defatul dara parce que xam na ne basket bi léegi am na xaalis alal alal bu dul parce que aujourd'hui l'État injecte beaucoup d'argent et ça il faut féliciter et remercier le président de la République parce que pour la première fois parce que man lu bari xam ko parce que nekkoon naa ci boppu basket bi ñoom am tey le président de la République avec le ministre Matarba, moi, man Baba Tandian aw sax le un tiers ou un quart ko Aujourd'hui, maintenant, l'argent coule à flot. Nous sommes en un état bu bo xamné afrique ñu envier événement sibir sibir sibir événement plus de 20 à 25 30 000 personnes dans la salle puis lool bo xolé en matière de recettes financièrement c'est plus de 150 millions bo la damay lister Maître Ndiaye coupe du monde avant le départ des gens il a touché par il 80 000 dollars bi coupe du monde bi amee jox pour le transport et pour les primes des gens quel est le montant qu'on lui a donné quel est le montant que le ministère lui a donné et cet argent là est-ce que n'a pas été dépensé et on veut avoir un compte fiable et net et clair La coupe du monde a commencé à à à troisième match Sénégal le Sénégal perte mais avant muy daw jot na dem paraît-il si information yi ma am encore de de Chine yobale na chèque de 80 000 dollars li nga xamé ne eh bien euh, moom la ko FIBA fay si participation xalé yi euh, si coupe du monde bi ça fait en tout 80 160 000 dollars. Mais 160 000 dollars, est-ce que 160 000 dollars, est-ce que c'est fait pour le basket, est-ce que c'est fait pour l'équipe nationale du Sénégal Ou 160 000 dollars, est-ce que c'est fait pour le basket, comme nous avons comme nous avons fait le championnat d'Afrique, parce que nous avons fait le Et puis ça, j'attire l'attention du, du, président de la République. Euh,

et puis le scandale le plus le dernier scandale bi nga xamee man wax nañ ma de Chine moom mooy Sénégal ñaari scandale moo femme, am ñaar c'est pour vous dire que le Sénégal aujourd'hui est devenu la risée un peu sur le plan international chinois est déjà euh, euh, fini ñu teg Sénégal déjà rek mais lu ñu teg ndox Sénégal déjà rek dafa ñaaw parce que les gens moo xew bi ñu jógee Dongguan jógee foofu pare dem di seen match euh, contre l'Allemagne contre l'Allemagne contre le. Euh, euh, la Jordanie eh ba ñoom bu ñuy jóge cet hôtel dernier nuit ba nga xam ne def nañ ko seen hôtel fayuñu ko borom hôtel bi daf len attiré wolen mais ñuy tax taxlu ñu jël cet avion ne furu dem seen yoon eh bien chinois commission méticule ils ont envoyé un texte paraît-il si hôtel bi nga xamé ne fofu la euh, euh euh foofu la ñu daloon fële à Shanghai. mais bu ñu yeggee foofu hôtel bobu si information yi ma am tay tay rek moom mooy Sénégal Allemagne ak Jordanie ñoom ñett ñoo bokkoon avion ñoo ñëwandoo ba ba ba ba Shanghai ñoo bokk même hôtel ñu egg ci hôtel les Allemands ont été logés immédiatement les Jordaniens ont été logés immédiatement et eh bien les Sénégalais ont porté pendant une heure une heure et demie à deux heures Sibir Sibir, si biir hall bi di jouer ping-pong di de si fauteuil tout ça parce que tout simplement on ne voulait pas les prendre bëgguñu loon jël si hôtel bi parce que tout simplement il dañ fa bàyyi borfole à Dongwaan